ñu lay dolli ziar di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di balu ak ñëpp di leen balu ak di balu wa àdduna bi yëpp ak di leen ziar di rafetluwaal déplacement bi nga xam ne da ngeen déplacé ñëw seesi ma dëgg dëgg maa sax <laughs> loolaa mën a waxee di di ziar sin mutaxa mbàkke mu nga xam ne sunu yaakaar mooy sunu lii ba si ki nga xam ne mooy sunu sëriñ bi encore mooy sëriñ may suur may si Mansour si di ko ziar bu baax di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal ay xéewal yu bari képp koo xam ne yàlla baaxal na nga yàlla baaxal na nga am nga wërsëg nga am teraanga war nga gestu ñi nga xam ne dinoo ñàkk parce que boo gisee comme ni ma ko waxee def naa ko avant loolu muy euh, gisoon nga ko muy hôpital bi jóge foofu hôpital bi joxe naa fa 10 millions mu jógee fa jëndaat du jël 20 millions jën ay pañe nga ne si Auchan yi bu ñu mu ngi koy jaay euh, quarante et un mille cent trente jën si lu ëpp 500 pañe boo ko calculé da lay jox 20 millions et quelque moom laa jën di ko séddale te encore gis nga dem encore xam naa sax après di gis si loolu joxe naa fi ay diwlin ay ceeb. déedéet diwlin ak lii beneen bi mm, pomme ak beneen bi ak soble ak beneen bi nu sax muy vermicelle euh, ak macaroni comme ni nga ko waxee ak ay ndawal li nga xam ne dañ koy soxla def naa ko wala dëgg yàlla démb encore te comme lu ma ko waxee rek xam nga àdduna ba si nekkee doole yamul te ñu bëri dañuy bëgg ndimbal te xam nga ne weer koor bii dafa metti dafa metti lool lool lool lool ku njëkk xam na lu weer koor bi dafa tombé crise parce que da jóge si ko si ci korona encore beneen guerre feeñaat nga xam nga loo kon koor gi day métti nga xam jox guma la nekk bu ñu yàkkamti dinaa leen jox incha allah wante xam nga xel mënu jàpp ñëpp te appel dinoo bëri appel dinoo bëri ay junni junni doomu aadama yoo xam ne da nga leen woow parce que boo xoolee boobu ba léegi wax dëgg yàlla maa ngi dugal maa ngi dugal maa ngi dugal maa ngi joxe rek maa ngi joxe billaahi wal azim yàlla rek moo ma tiim waaw kay lii lépp lii lépp lii lépp ay wéev la lii lépp ay wéev la yoo xam ne dama koy joxe connexion bi sax moo tax moo yeex yaa ngi gis mhm. lépp ay wéev la lépp ay wéev la yoo xam ne ba si orange money bi yaa ngi gis ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñoo xam ne ñoo xam ne jotuñ fi man mii toog rek jot naa sax <laughs> kenn jàppalu ma si xanaa ñi nga xam dama la ñaan ñi gis rek comme ñi nga xam ne doon nekk bitim réew ma ñaanañ leen ñoo xam ne yoruñu woon dara ma defal leen tey milliardaire man maa leen ko def ci gannaaw yàlla ak yeneen man maa ko def maa leen def ni nekk milliardaire ba tey ni am alal boo xam ne alal bu bëri ñoom ñooy ëlbati nag di ma jox alal ñi may jox ay 500 millions ba ni boole ma mën a ak ak Western Union ku ma si yónni doo si jot du ma si jot parce que maa boole ke li may jot si alal si xaalis moo bëri. beneen tur laay joxe pour ñu mun ma say jot loolu nag comme ni ma la ko ñooñu bu ma joxee comme ku ma jox si xam ne ñaala naa la nga jox ma 500 millions xamal ni 20 millions 30 millions yi xamal ni si si population bi la jëm bu fekkee un milliard xamal ni noon la. parce que am na ñu koy fay am na man dëgg ñaan jar na lu nekk am na fay au milliard am ñu fay ay kër am na ñu fay oto ndax fekk nga mën ko parce que wax ne dëgg ñi Sénégal yi def ñun africains yi def ñun tubaab yi sax def ñun. booy ñaar ñu teg seen bët ak naar yi. lu loo bëgg sa àdduna dañ la koy jox kër ak oto ak lu nekk dañ la koy jox kon nit war naa di chaque jour di sonn si doomu aadama yi nga xam ne dañ naa yaakaar pour boo la ñaanee di rek da ngay am sa jàmm jarul ngay tiraani nit ki jarul ngay dóor comme ni nga waxee jaru ko parce que alakul sa wërsëg di nga si jot xam nga dóor nit ki di làqatu di daw di làqatu di am sans intérêt nit ku ne war na ko moytu kilifa moomu loolu moo tax loolu jaru ko man nit xam nga te di yéen ma bett walla asi nit comme ni ma ko waxee nit waru yàqamti war si gam di dugg si loo xam ne c'est pas loo xam ne da koy indi ay problème loo xam ne da koy indi ay jafe-jafe nit ku nekk war naa toog parce que boo tëjoo néeg bi sax waru sëkk dinañ si jot ala kul aadin si jot kon jaru yàqamti lan nga yàqamti di def loo xam ne su dul noonu am alal ba ba nga loor sa bopp boo toogee di di nga si jot li nga def ba nit ñi contacté la sa téléphone ni woo la boo defee ndànk di nga liggéey li nga li ñu bëgg te doo si am benn problème doo si am benn bañ naa lool sax damay ñaanal nit ki ba mu gis mu doo ko fay waaw toog Cees neex na ma torop wax dëgg yàlla parce que fii laa yaroo fii laa sama mbokk fii la nekk sama yaay fii la nekk sama papa la nekk sànq rek war nga jël paa bi parce que da nga fekk ma jox ko benn benn jël am na ñu koy jotoo jël sax jox benn 4 x laa ko jox. macha allah waaw laa ko jox muy sama papa. waaw dama ko ñawal kom ñawal yi laa ko ñëw. waa kay mu nga foofu mu joxaale ko caabi oto. jox ko 4 x moo ko jël ak oto bi maa la ko jox. wax dëgg yàlla moom ma si ñaan lu baax. loolu nag sama papa la sama waajur la. ci woon lu ma ko juree. lu ci mu nekk sama doom dama koy dége dama koy teetaroo ndax jàppale na ma ci biir ak ci bitti daal yëkkati oto ne su papa bëgg dama bëgg fooy dem nga nga nga ma boole la suufur mu jëndal oto ma nekk ah ma ne wallaahi damaa incha allah ñaanal ma rek damaa bëgg jënd oto jox la booy dem Tiwaawan wala booy dem su mbokk yi nekk kow nga nga jël oto bi noonu la def caabi jaa ngi nii. yëkkati oto bu bees takk xaatkaat bees takk yëkkati jox ma wax dëgg yàlla ah, maa ngi koy ñaanal lépp lu mu mun ren na ko mun déwén te yéma ci fii rek ñi ma bokkal mu ngi leen di jàppale waa koñ bi mu ngi leen di jàppale leetil xadiri bi man fii fii lay def leetil xadiri fii dafa jënd nag jox ma ñu joxal waa def ko ci leetil xadiri bi gàmmu tiyaawoon bu ñëwee dee jënd ñàkk jox ma ne yóbbul Tiwaawoon kon munu ah munuma wax munuma ko fee ndax sama doom la waaye sant naa ko gërëm naa ko ci ñaanal naa sama xol set na ci moom noonu la jàppale yaayam noonu la jàppale ay rakkam rakkam ñu ngi nii iri war na fekk ñëkk ay jànk di dem di mbindaanu loolu lépp def leen toog leen fii di leen defal teraanga kenn demul nekk jànk di mbindaanu te loolu lépp mënoon na daanañ ko daanañ ko def fekk yàlla indee ba léegi ñëpp ngi toog ci kër gi manqué wuloon dara manqué lu ñuy dara ñëpp a ngi toog ci kër gi manqué lu ñu dara te dañ doon nekk ay jànk bariwuma doole may fortaat ñoom tam ñu ñu ñu mbindaanu loolu lépp yaa ab ablaay bi mu ñëwee loolu lépp da koy dindi